Assane Gueye lu ñeel coowal génnug àddina astu soxna euh, ci euh, hôpital Amadou Sakhir mbay bu Louga association sage-femme yi Sénégal euh, ñoom ba tey ji rafetlu wunu nan ca doxale rawatina ci seeni ñooñ yuñ ci te ci kaso bi jamono yi waral alxamis tey ji ñu fas yéene ñu ne du am ab liggéey ci mbooloo maternité yu Sénégal muy bërëb yi soxna yi muccee ñoom sage-femme yi fas yéene bu keroogee 27 avril bëccëgu àtte gi ñeel seen ñeenti camarades yooyu ñu amal ndaje mu yaa ci kanamu tribunal grande instance bu Louga Amadou Sabax Ba defante gu tar la association bi ëmb sage-femme yi nekk fii ci Sénégal taxawee ngir jàppale seeni ñooñ yu hôpital bu Louga nga xam ne jamono ji ña nga ca loxol yoon ci mbiru astu soxna ba tax na association bi décrété na ci alxamis ji journée maternité sans sage-femme maanaam ñoom ñëpp dañuy banque seeni yoxo Biége Bambooñ mooy présidente association bi. dellu ginnaaw ba sunuy mbokk yi nga xamee ni ñu ngi ci loxol yoon ñu dindi tuuma bi leen tegal ba tax na communauté yëpp sage yi dañuy banque seen loxo ndax na comme dañu ne ay raykatu nit lañu te joxuñu nu ay jumtukaay yu nu liggéeyee te tey bu méttee kenn du gis suñu ginnaaw ñaareel ba àllarba bii di ñëw di 27 wax nañu sage-femme yëpp nañu dem luga ñu dem teewe ci procès bi dem jàppale suñuy naataangoo yi nekk foofu dogal yooyu njeexital yi ñu nar a am association bi di wax ne Abdoulaye Diouf saar jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram moom rek ay bi lii yëpp moo ko waral Louga muy même sage-femme yi nga xamee ne wala waa kër docteur yi nga xam ne ñoom ñooy faj Louga ñooy raykatu nit yi ñoom la ñuy demaat di leen fekk ji waat Ndar ñoom la ñuy demaat di leen fekk ji waat ci waawoon lépp lu am ci loolu kenn rek moom moo ko waral muy monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action moom mi nga xam ne dafa toog mu ni moom moom mooy yoon mu dem ci presse fekk ay nit yuy liggéey xam ne jafe-jafe ya ñuy nekk moom mu ni moom mooy tribunal bi nga xam ni moom mooy tuumaal ay sage-femme soutien ministre de tutelle association bi jàpp na ne sanction yi dafa am ak parparloo bii Géba waaye ba fii toll amul dara ci enquête wala ci audit bi bu war mën a wane ni mën nañu teg lu baara tuuma ni sage moo ko def association nationale bi ëmb sage-femme d'État fii ci senegal di feddali njàppaleem seeni collègues yi nga xam ne ne ñoo nekk ca luga dolli ci ne am nañ yaakaar bu baax ci li nga xam ne ne mooy justice su réew mi Amadou Sabax jërëjëf Bambey bëccëgu njëkk gu grève boobee ñeen waa Kër Docteur yëg nañ ko fa lool ci département ba mooy seetlu bu secrétaire général coalition And Gësëm mu ne infirmier sage-femme ñoom ñëpp ànd maasé wan ginnaaw hôpital yi Mbaye Dieng ñu lu ko ak Babacar euh, au niveau de département par rapport euh, à la grève euh, boo jëlee sur les trent trois structures que compte le DG santé de Bambey maanaam si fanweer ak ñetti poste santé yi a euh, ñaar Fatick ak ñaari santé yi ak benn centre santé bi nga xam ne nekk na au niveau du du département de Bambey mën nañu wax ni euh, poste yëpp foo dem tey euh, ñi fa nekk muy infirmier muy sage-femme yi observé nañu mode de grève yi waaw loolu moom lu am la parce que li ñu metti mooy sunu collègue yi nga xam ni sage-femme yi nga xam ni tëj nañ leen emprisonné nañ leen au niveau de Louga loolu lu ñu metti la benn bi aussi mooy pour tamit ñu satisfaire sunu plateforme revendicative bi nga xam ni boobu ba léegi nguur gi mën ko mais nangu si yee nangu si di ñu tere nelaw waaw loolu mooy euh, situation grève bi tey euh, fii au niveau du département de ñu moom même mbir di génn ko àddina astu soxna ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ak étudiant yu faculté médecine pharmacie ak odontologie bu université université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yu fas yéene ci mouvement tay bi kër docteur fas yéene amal di euh, wan ginnaaw liggéey bi ci alxamis ji ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril 2022 ñoom yooyu étudiant ne du am stage du am lenn ndax dañoo ànd ci mouvement bi ci it bu nu sañoon ñu ne état bi doxal ak ñàkk parparloo ci mbir yi seen euh, njiit euh, boobu amical étudiant yu pharmacie ak odontologie ak médecine na ko noonu bu université Cheikh Anta Diop Fallou Ngom ne mooy métitlu di ko jaale aussi ay mbokkam mouvement syndical personnel yi ñëpp nga xam te ñoo liggéey ci wàllu wér ni ñu observé benn grève amicale de la faculté de ni ñun nga xamante te ñun ñooy nekk suba ci niveau des hôpitaux donc ñun tamit question bi lu ñu interpellé la donc depuis bi décès bi amee ba tey ñu ngi suivre situation bi avec un particulier di ñaawlu en tout cas autorités yi nga xamante ni ni moom lañu am situation bi parce que bi décès bi amee ñëpp métti lu yi sax ñu parce que en tant que docteur patient boo ko perdee balaa muy métti kenn yow la njëkk a métti mais problème bi am rek ñu gis benn acharnement boo xam te ne dafa c'est injustifié boo xam te dañ ko am jëmale ko ci personnel médical bi aussi bien par les populations mais aussi à notre grande surprise par l'autorité du ministère de la santé donc loolu lu ñu ñaawlu la loo xamante ni rafetlu wuñ ko d'accord waaw dañu war a def enquête enquête képp nga xamante ni ci laale lu sori wala lu jige nga impliqué wu ci décès bi teg la daan nga xamante ni c'est déjà prévu par la loi mais pas ñuy dem que ni enquête bi génneegul ubbi nañ enquête résultat amagul xamaguñ kan moo def xamagul kan moo def ñu jël ay décision sanctionné ay médecins fii nii jël ay sage-femme yóbbu feenee te kenn xamagul kan moo def ak kan moo deful problème am nii ñu war a permettre ñu mën a xool lan moo dox ak moo doxul fan moo def ak fan moo deful laale ak la laajte laale lan la ñu des ak wàllu wér-gu-yaram ak euh, dogal tukkee ci euh, ndajem conseil des ministre démb wala bokk lu ñu fa gën a waxtaane ginnaaw ndaje mu jiit woon euh, loolee diggante njiitu réew président Macky Sall ci palais la république ak waa kër docteur démb it ci conseil des ministres waxaat nanu ko ca muy lii di defaraat yeesalaatu hôpital Aristide Le Dantec liggéey bi nag weeru saatin bar ci lay daal di tàmbali jëm ci coppat ni ñeel boobu hôpital ak toxol du fa am fa mu ne lay ne waaye xam ngeen ni hôpital la bu laajoon ak yeesal naka noonu it lu jëm ci wàllu lii di yanjala xalaat euh, moo waral dinañ ci jublu ci boobépp liggéey ak pàttali jëm ci réeróo ba woon diggante directeur hôpital gi ak syndicaliste di fa rek euh, section sud sas diwaan ga euh, ngir wàllug yëggalug ay ndàmpaayam yu ñu doon ñaawlu ñu ne yóbbu ko ba benn ci million ci xibaar yu mujj yu RFM docteur Ousmane Gueye faf na kon ba ci suuf loole ne ay indemnité RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes. aéroport international Blaise Diagne ak euh, lu jëm ci wàllu euh, kérosène geek euh, ñàkk gis gi ak àddina ak tolluwaay li bokk na ci li waral këru ko roplaan yu bari di ay compagnie aérienne xoolaat lu jëm ci waxtu ak bis ya seeni roplaan di naawe fii wala di fi teer si ñu ci mel ni waa Bruxelles Airlines ak Air France am na it ndaje mun doon amal démb ca foofee ca Diass di ndajem crise waxtaane kérosène geek lan ci war a jël nay matuwaay Abdourahmane Diallo ñàkkum kérosène bi commencé na indi ay jafe-jafe ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass ay avion bitim réew yi nga xam ni dañ leen dànkaaf woon ci week-end bi ni kérosène bi du am commencé nañu annule seeni vol Air France moom mi nga xam ni war na fi jóge ci mercredi bi 23 heures ngir dellu France moom dafa annuler vol boobu compagnie boobu nag waroon bokk ak Delta ak KLM ngir yóbbu seeni passager du Air France rek moo daal di def li ni mel Air moom it dogal bi ni mel la daal di jël amul départ amul arrivée compagnie boobu moom it waroon lëkkaloo ak ay client Air Canada Lufthansa ak United compagnie bitim réew yu bëri xamale guñu yan dogal la ñu daal di jël ginnaaw ñàkkum kérosène bi nga xam ne wax nañ ko ci ay AIBD ñàkkum kérosène boobu sax tax na ba mercredi bii nii njiitu AIBD ak ñuy yëngu ci wàll bi daal di amal ay waxtaan waxtaan yu am ci ay waxtu yu bëri ci fàttali société bii nga xam ni mooy saytu ci lu jëm ci wàllum carburant ci ay AIBD xameloon na ni kérosène dina ñàkk ci AIBD loolu ci diiru ñaari semaine gën kaa gàtt joorin bu yoroon mbirum pétrole pétrole ak xeet gi ni mel moom dala noon na xel yi ndax dafa waxoon ni am na ab bato bi nga xam ne war na ñëw mu appal ko gën gaa bëri ñaari fan ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer mètre yi nga xam ne ñoom ñoo des armée bi lañ ko jagleel ak Air Sénégal Air Sénégal moomu sax bokk na ci compagnie yi nga xam ne ci mercredi bi mën nañu wax ni ñoom rek a respecté seeni planning ci ay BD RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane ñu ay AIBD jëlaat péage gi wutali Fatick euh, waxtaanee euh, sàmm si ak seen i jafe-jafe ci wàllu càccum jur gi rawatina donte ñu ne euh, lii di daan yi diisal nañu ko lool gën ko diisal ci sàcc si terewul ñuy def lu ni mel di leen xañ seen ak jur ci ñu ci gën a loru mooy ñi ne ci gox yi kaw gi ñenn ci sàmm yu ñu dajeel ca lu mëb jurub ñoo ni waxee Aminata Goudiaby. Hmm? marché hebdomadaire bu Diouroup bokk na ci yi am solo ci biir département bu Fatick comme ni mi amee àllarba ju nekk tey jii bërëb ba feesaat na dell ñi nga xam ne nag ñoom ñooy sàmm ñu ci bëri foofu la ñëw gi ba léegi daf eh, nga war ñu ci jir ñu te mën a ci jir ñu keneen ñëw sàcc ko loolu neexut nguur bi nag moo ñu mën a dimbal nag loolu nag mooy suñu jafe-jafe ci Sénégal nag sàcc jur yi daal mooy suñu jafe-jafe ci Sénégal. moo ne day nguur gi dafa gën a sax safal li nga xam ni moom moo di daan ñi teg képp ku laal juru jàmbur waaye nag dafa mel ni defkatu ñawtee fii loolu taxul ñu découragé ma addida moom itam ab sàmm la. dañ see ñàkk pexe ndax bi mu nekk nii ba jëriñoo nit ñi ñëw jël ko ba pare sàcc ko dem lekk ko jëriñoo te mun am si dara te ñun fi nekk nii ñu sàcc suñ jur ba pare jàpp ñu dem yóbbu ko yoon duñ ci am benn buntu ndax man ba dem naa si ba tribunal te jotuma si dara te ñoo mujj saxaar yi xam ni moom lañ faral di jël léeg ngir ngi gisaat ko day jafe ndaxte boucher yi lañ koy jaayee sàcc léegi pour nga sàcc gis sàcc bu jaay ci daral yombut sàcc buñ sàccee yi lañ ko war a yóbbu koy xam a a yóbbu ah ñooñu dibiteri jaay xam nga jur bi ñuy sàcc dugal ko dibiteri dibiteri kër la am mën a dugg ci këru jàmbur di ko puyete moo ne day ay ndaje yu bëri organiser nañ ko ci biir Fatick ngir rek sensibiliser ci càccum jur gi ak li mu mën a indi éleveurs itam ci seen wàllu moo war a gën a sakkan ci bi bu ko defee ñoom ñu gën a nekk ci sécurité Aminata Goudiaby Fatick RFM. RFM rajo askan wi wàllu politique ak mbootaayug benn bokk yaakaar ga fare ci assemblée nationale ñoom juróom benn fukki junni euh, ci ay euh, parrain la ñu daal di baaxee délégué national bi ñu euh, dénk wàllu parrainage bu benn bokk yaakaar di soxna Aminata Touré ñoom yooyu député yi majorité gi ne nag fas nañu yóbbu mbir yi ba juróom-ñett fukki junni ci conférence de presse la ñu ko xamle bokk na ci la fa jib ne xalaat ak xibaar ki fi ne woon ni jamono premier ministre bu àddu ci dogalab CEDEAO ci wàllu parrainage gi loole du leen mën a nangul ñoom waa CEDEAO ñu ne groupe parlementaire gi ni ma ko waxee nekkoon cib janook taskatu xibaar yi ci teewaayu soxna Nafisatu Ndiaye. coalition Benno Bokk Yaakaar déposé na juróom benn fukki junni signature mbébétam nag mooy am lu yemook juróom-ñett fukki junni signature fileeg fan yu ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo ci ay meeru ñink comme député yi dañu dajale woon seen i parrainage ñu ñëwoon di ko remettre madame Aminata Touré mu toll ci juróom-benn fukki junni parrain xam ngeen ni nag euh, ñëpp ñëwuñu parce que am na député yoo xam ñu ngi ci biti mais ñoom dinañu indi seen wàll mais waxtaan nañu ak moom parce que am na ñaar fukki junni yoo xam war nañ ko war a indiwaat muy quatre-vingt mille am nag sa yeneen collègue député yoo xam yoo xam ne dafa tegu li ñu leen sasoon bu ko defee yooyu yëpp suñ ko boole dina mat téeméeri junni parrain. Aminata Touré di délégué national du parrainage ca Benno Bokk Yaakaar jàpp na ni dogal bi CEDEAO jël ngir dàq parrainage bi du yoon. la cour de la CEDEAO c'est notre cour à nous tous ça fait partie de notre architecture euh, judiciaire communautaire ça euh, il n'y a pas de doute là-dessus ce sont des juges compétents qui livrent les décisions mais la décision sur le parrainage nous considérons qu'elle n'est pas réalisable il faut que le droit aussi soit en conformité la pratique. coow ci réew mi mun sukkandikoo ci ay kàddu yu ki fi ne woon premier ministre ku gi fi ne woon doon critiquer parrainage bi jamono ji mi ngi dajale ay signature jërëjëf soxna na fi Nafisatu association commercant ak industriel yu Sénégal di assis ñoom ñooy leeral ni dara jotalewu leen ak benn liste ci élection législative yi nu dëgmal kon nañ leen ca génne ndax ñoom mbootaay gi du ñu àddu ci politique donte seeni membre nag ku mu ca neex nga def sa tànneef ak bopp directeur exécutif bu ACIS la ñu ci àndal Oumar Cissé ak Jean Paul Ndour. communiqué bu ñu dégg mu jaar ci seen benn journal seen rajo bi. ci benn kuréel boo xam ne ay opérateur économique lay nee dañoo bëgg am liste boo xam ne dañu war a dem ci députation yi ci élection euh, député yi ndax dañoo bëgg euh, opérateur économique yi ñu leen teewal ci hémicycle bi ci assemblée nationale ñëw nañ gis ñu comme niñ gisee ñeneen wax ñu ko biñ ñu ko waxee suñu tontu mooy assis du entité du association boo xam ne day politique jàppalewul ma Samba jàppalewul ma Demba président bi ci bopp sax mënul def politique mënta sax am post nominatif politique mënta nekk loolu suñu statut la ko tere ndax ci communiqué bi ku déggee li ñu waxee dafay mel ni ACIS dafa wax ne ACIS association la boo xam ne du politique jàppalewul kenn joxewul moo tax kenn li ngi des ci nekk association boo xam ne li ko tax a jóg mooy défendre commerçant yi industriels yi jéem a xam seen i jafe-jafe xool luñ ci am ay saafara RFM Sport. sëñ ngi lay ziar maa ngi lay fay El Hadj Assane fii comme yaay euh, sëriñ bi ñu ngi xaar nga wax ñu. ayca <laughs> guddi gi laylatul xadr gi nga wax ñu ban ban la <laughs> ko ayca <laughs> ñu daal di waxtaanee wàllu football ak euh, lii di éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations euh, Côte d'Ivoire Euh, Sénégal nag moom problème xam nañ ko ànd na seeg euh, Rwanda Mozambique ak itam beneen mm. beneen nag ñoom tàmbali nañu waxtaanee gi lay jogante jaarale ko ci ñenn ñi nga xam te seen xam-xam dafa màcc ci mbir mi ba pare dëkkee euh, foofule dañ si daal di déglu sax ki di René Soglo moom mi nga xam te ni suñu naataangoo la nekk ca Fraternité FM paraku ca beneen ma ngay yëkkati ay kàddu ci pul googule ci micro Youssouf Bodian avec euh, la compétition de la coupe d'Afrique ak coupe d'Afrique bi weesu béninois yi dañoo xaw a teey bu baax a baax ci wàll wi waaye nag jàpp nañ ne groupe bi moom euh, mun nañ cee génn Bénin moom moo war a fexe. ba ñëw ci wetu Sénégal di ko diir mbagg bu baax a baax ndax match bi ñu mujjee def Sénégal moo ko daanoon ci CAN 2019 un but à zéro kese sélectionneur bi entre temps dem na yoonam jamono ji Moussa La Tondi moom mooy assure intérim bi beneen daal li ma koy euh, xelal moom mooy ñu jël Sénégal def ko morom def ko nawle challenge ko bu baax a baax bu ko defee dinañ mën a jouer seen chance à fond nit ñi tamit euh, xaw na nañoo am mbegte lool bi ñu déggee tirage bi ndax kat li ñu yàkkamti moom mooy gis fii ci Cotonou ay star yu mel ni Sadio Mané ak ñeneen ñi nga xamee nañ leen di seetaan saa su ne ci euh, champions league beeg euh, yenn championnat yu mag yi. jàpp naa ne daal euh, Bénin dina qualifié te am na yaakaaru qualifié bu baax a baax ci coupe d' Afrique bi am foofee ca Côte d'Ivoire. geneen équipe bu bokk ci yooyu la éliminatoire CAN 2023 moo di Gambie ñoom nag seen stade nekk ca Bakaaw dañu ko dal di jamono gi maanaam mënuñu fa football ndax ay liggéey yi nga xam ne daa ñu ko fay amal ba tax na fédération gambienne bu football fi mu toll nii nag. dafa daal di euh, bëgg a délocaliser ay matcham indi ko fii nii ci Thiès stade Lat Dior ngir daal di fa recevoir ay euh, naataangoom euh, maanaam équipe bu Mali Congo ak Soudan du Sud ñooyu équipe ñoo di équipe yi nga xamante ni daal ñoom la waa Gambie daal di bokkal poule fi mu toll nii sax sa la ñu xamle moo di ñu ngi seq waxtaan. ak euh, lii di fédération sénégalaise euh, bu euh, football ngir loolu dal di antu ci kàddu ki nga xamante ne moom moo yor bu mu jokkoo bi ci biir fédération gambienne bu football Boubacar Camara moom lay daal di wuyoo daal di xam ne nag lu tax ñu daal di choisir lii di stade Lat bu Thiès moo di jege bi nga xamante ne jege na ko Gambie rax ci dolli tamit dana mën a maanaam daal amoindrir lii di seen i dépense rax ci dolli tamit danañ gis ni daal Sénégal. dana leen jàppale ci yoon googu la daal leen supporter loolu nag euh, moo di lu mu jot a wax fàttali nag euh, lii di stade bu Bakaaw kenn homologué ko bawoo ci waa CAF ndax euh, ci ay jamono sax ñi nga xam ñoo di waa Gambie ñoom seen match ñu ngi ko doon amal ca Maroc bu loolu weesoo ñu daal di waxtaane ba tey wàllu football waaye bii la yoon championnat ci biti réew championnat bu Angleterre foofu nag jàppale ni dóor beeg dàq bi ba tey mu ngay wéy diggante Manchester City ak Liverpool ni ki démb nag Manchester City daal dina foqati place bu njëkk bi ci Liverpool la ko waral moo di ndam bi mu am démb ci digganteem ak Brighton. ñetti bal ci dara Mahrez Phil ak euh, David Silva ñoom ñoo jot dugal euh, butu euh, équipe bi di Manchester City fi mu toll nii rawee na Liverpool benn poñ Liverpool mi féete si ñaareelu place bi. ni ki dem bi tamit ci derby londonien bi diggante Chelsea ak Arsenal Chelsea dafa daal di ñàkk ci diggante ak ñooñu di waa Arsenal 4 à 2 fi toll nii ba tey ñoom ñu ngay Chelsea féete si ñetteelu place bi xëcc ngir mën a bokk ci wàllu Ligue des champions ni ki di wen Everton naa dugal moromam but ki di Nampalys Mendy étranger laata muy génn ci njeexitali googule jongante Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté moom démb dafa daal di ñàkk. ci diggam ak ñi Newcastle 1 à 0 ci Espagne ñoom ñi ngi seen 33e journée si seen championnat Real Madrid moom démb dafa fekki Osasuna ci dëkkam daal di ko daan ñetti bal euh, ci euh, benn euh, fàttali nag kii di Karim Benzema jot naa raté ñaari penalty Real Madrid nag jëkkanoon loolu ngir daal di jël li nga xam te ni moo di championnat bi foofule ca Espagne ca France moom PSG dana ndég xaar fileeg ci kanam euh, nan lay mujjee euh, la ko waral nag moo di moom itam jekk na loolu ngi daal di jël li nga xam te moo di championnat bi waaye démb euh, gannaaw ba mu amee ndam ci digganteem ak Angers ñetti bal ci dara noonu itam la Marseille daal di def mujj am ndam ci digganteem ak Nantes ñetti bal ci ñaar loolu nag moo tax lii di sac PSG dañu ko daal di retardé ba jëmmi jamono démb nag Marseille ci ba muy football ki di Pape Gueye moom jot naa dugg ci li nga xam ni moo di deuxième période bi Bamba Dieng nag moom nga woon ca banc des remplaçants yi AS Monaco moom démb mujj naa am ndam benn bal ci dara digganteem ak Nice Reims Reims dafa mujj am ndam moom itam ñaari bal ci benn ci diggam ak ñi di waa Clermont moo dafa fekk trois ci dëkkam daal di ko daan benn bal ci dara Brest mujj naa am ndam ñaari bal ci benn ci digganteem ak ñi Lyon Lens la daal di daan ñi di waa Strasbourg mujj am ndam ci digganteem ak Rennes ñaari bal ci benn Habib Diallo di doomu Sénégal nekk ci Strasbourg moom itam jot naa dugal démb Girondins li di euh, lii di Coupe ditali ñoom nag euh, seen affiche finale daal nañ ko xam ni ki euh, démb Juventus de Turin moom daal dina fekk Inter de Milan euh, ca finale ba Juventus démb ci demi finale bu mu doon amal digganteem ak Fiorentina dafa mujj am ndam di demi finale yi moom dafa daal di daan ñii di waa Milan AC jamono gi féete ci bopp rogadu gi championnat bu Italie ñaareel place bi nag ka fa féete sax moo di Inter de Milan kon boog Alaaji Assane li moo fi gënoon fës ci xibaaru tàggat mooy finale mooy <laughs> pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. jërëjëf Abdou Thiam ñu ànd ak mbokk yi ci chronique culture beeg Anacocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi projet bi ñu dippee if there is no sun nañ ko ni ki talaata ji weesu ci centre culturel Blaise Senghor mu di euh, projet boo xamante ne li ko tax a jóg moo di euh, boole artist yu jóge Italie ak bitim réew loole nag ñu jaarale ko ci chorégraphie maanaam pecc mi Fatimata Tali teewee na ko. ay artiste yu jóge ci réew yu bari ñëwoon ngir bokk ci chorégraphie bu if there is no mu doon ab projet bu gëstu ak production René Roussoli Lo dip chorégraphe di ñëwaat si li waral projet bi. on s'est mooy andi ay leeral ci aada yu wute yi waaye itam andi li nga xam ni moo leen wuutale ak li leen méngale aada yooyee naam sax wuute nanu war nañu mën a bokk gis-gis ci ni àddina bi di doxee mun nag ñu ko nar amalee ci ay fecc ak way waaye itam di wane ay vidéo. projet bi naruta yem fii chorégraphie dañ nekk si résidence danse artistique Jean Tamba di feccikat di tamit directeur bu compagnie cinquième dimension. waaw mujjanteel gi mooy liggéey bi ñu wane ko Sénégal dina dem Tunisie dina dem aussi Italie. là ñoom suba la ñuy ñibbi mais le 10 à partir du 10 ñu ngi Italie ba septembre def résidence de création parce que li juste avant goût la c'est pas encore du création bi encore des na liggéey bu bare léegi bu ñu paree après dinañ def tournée Italie ñun nag ñuy ñaan ñu ñëwaat fii Sénégal jouer spectacle bi après dinañ dem Tunisie aussi projet bi daal nay tax ba ñu saytu yeneen yeneeni anam si ni ñuy feccee alxames ji nag ministère de la culture dina jébbal association de la presse culturelle du Sénégal ay euh, téere mu di don de livre boo xam ne mu ngi bokk ci activité yi ministère bi fas yéene dawal ci euh, journée mondiale du livre et du droit d'auteur bi nga xam ne dinañ ko màggal euh, samdi ji ñu dëgmal ba tey alxames ji ci suba institut Cervantes bu euh, Dakar moom dina dalal vernissage exposition bi ñu dippee vingt cinq ans de photographie euh, humanitaire mu di exposition photo boo xamante ne mu ngi euh, tukkee ci juróom fukk ci ay photo yi nekkoon ay lauréat ay finaliste wala boog ñu sélectionné leen ci concours bi ñu dippee prix international Luis Baltueña mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. transfert d'argent bi wóor RIA. seen savon yi di créole. ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bés bi le jour nee nañu bés bu compliqué la ñu nar a dund bésub ci wàllu santé ci réew mi yëral xët mu njëkk journal bi liggéeykati kër docteur yi di les de la santé ñoo woote ab grève générale nee nañu tey ji ci alxames yi dañuy toog faste seeni loxo duñu faste xànc ak morom sage-femme yi ci réew mi te banqaasoo ci nguur ñëpp ci faatuk bu Louga la naqarlu ak di leen jàppale bëgg nañu it bésub àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril gi ñu war a àtte juróom-benn sage-femme yi ñu tëye ci la xewoon ci Amadou Sakhir Mbaye ñoom sage-femme yi mi ñu defu mobilisation dem taxaw ci seen wet l'observateur nañu ñoom sage-femme d'état yi ci réew mi démb lañ doon conférence de presse wax fa nag mbooleem lu di coono jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel ci seenub liggéey mu nañu ko association des sages-femmes l'observateur nee nañu ñaawlu nañu it kàddu ak taxawaayu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ci li xew ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ci seen gis-gis génn gi ci Abdoulaye Diouf Sarr génnoon ak la mu ca wax mënoon naa ñàkk ñaar fukki maternité ak benn yi nekk ci réew mi yépp la ñu fas yéene paralysé tey ji ca maternité yi ca Louga moom l'observateur nee nañu la femme amul fenn maternité ya nekk ca région ba yépp la ñu tëj ngir venger wul seen naataangooy sage-femme yu ñu nañu fa ay jigéeni biir yu toll ci accoucher waaye dañu leen a mujj évacuer ca Ndar Ndar jàpp fépp ci réew mi mi direct news mi ngi ñuy wax ne am paj du am ci hôpital public yi waa ànd gësam ak collectif des travailleurs de la santé ak sociale nee nañu lu dul urgence ak service minimum duñu ko laal tey seen bëgg-bëgg it yéenekaay bi ne nañu bokk nañ ci ñu jëli kii di Abdoulaye Diouf Sarr ca bopp ministère de la santé docteur Souleymane Loukar bu hôpitalu Louga di leeral ci direct news ne rapport audit bi tukkee ci faatuk asu rapport ba waxul ay responsabilité am dàq Abdoulaye Diouf Sarr ndax lu yàqu ci système sanitaire réew mi rek moo ko yàq les économies juróom-benn sage-femme yi ñu gàll ay tuuma ca Louga ba jël ñeent ci ñoom yóbbu ca kaso ba jëf joojee moo yokk joote ji moo ñuluk sage-femme yi ba tax ñu sóobu ci defante sage-femme yi nee nañu bësub tey jigéeni wérul ju leen yaakaar doo accusé ci réew mi réew mi quotidien bind ne secteur santé bi salfaañoo na fajkat yi xëy nañu ab grève général nga dem ci hôpitalub luga grève ñetti fan la fa gaañi yi ci mi réew mi quotidien nee nañu amul lu ñu yàkkul Diouf Sarr ci jamono jooju yéenekaay bi nee nañu li ñu gis moo di Macky muy ndamoo ak kañoom bilam ci wàllu santé ak di sàkku ab audit ci anam yi ñuy doxale structure de santé yi la nañu looloo am Macky nee na nañu ko càmbaral doxalinu barabu fajukaay yi ci réew mi biir ak biti defal ko ci rapport jox ko ko jox leen ma le quotidien ma wax leen li xewoon ci ndogu li président Macky woote woon keroog dajale woon ca mboolem leader benn bokk waaye bu ñu féewaloo dara duñu ko am sursoi nañu moom Macky Sall dem na ba yegg ak ñoom ci di wax ne il faut dañuy booloo doon benn bokk benn jëmuwaay bu ñu bëggee gagné élection législative yi te bu réere mbir ne suñu ëllëg ci bopp réew mi ci élection législative yi ci la wékk le témoigné nañu est xam na ne maître Wade taxaw na tem ci wekki lépp lu mu daaj moom Macky Sall bi dañu xamal ci xëtamu njëkk ne jàmmoo ga woon ci diggante Abdoulaye Wade Macky Sall ko nguuram ñoo ngi koy def ci réew mi te du yoon bokk na ca yooyee dogal bi ñu jël jëm ci bëgg wàññi li mu député yi ci liste nationale yi journal La Tribune bind ne maître Wade mi ngi sàkku ci opposition bi yépp ñu booloo doon benn ngir jàmmaarloo ak nguurug Macky Sall gi transfert d'argent bi wóor ria seen savon yi di créole ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jërëjëf du Mouhamed mbokk yi ñu ngi leen di gërëm xibaar yi bokkoon na ci li nga xamante ni mooy euh, sooxe gu jamono yi ci kër docteur Sénégal ak euh, ñoom ñëpp ànd maase daanaka euh, fas yéene banque yoxo yi tey ci liggéey bi muy sage-femme yi di waa kër docteur ngir rek daal di teg ci wet ga ñu ne blouse yi di wane ak naqar ak mitit ci tolluwaay li rawatina lu ñeel sage-femme yi diwaanu Njàmbur seen i naatangoo daal nañ leen taxawe dugal ñenn ci kaso bi ndax génnug àddina astu soxna du yoon euh, rafet lu wuñu ko waral yëglu gi te it bu keroogee avril di bëccëgu atte bi ñeel ñeent ci seen i camarades yi ne ci kaso bi euh, dinañ ànd maase def gàngoor ci kanam tribunal grande instance bu Louga jamono yi fii ci Ndakaaru UCAD ak euh, ñii di étudiants yi yëngu foofee ci wàllu médecine wàllu pharmacie ak odontologie ñoom it fekk mouvement bu seen i naatangoy kër docteur ànd nañ ci ndax dañoo gis ne nguur geeg na mu doxalee ñeel mbiram Louga mi dugi ne boo xamante daal dafay daal di neutre tëddee ñàkkum kérosène gi ak euh, njeexite yi muy am xaat ci aéroport international Blaise Diagne ak yenn ci këru roplaan yu commencé di xoolaat réaménager euh, seen euh, waxtu yu seeni i roplaan di naawee fii wala di fi terse ci mel ni waa Bruxelles Airlines ak ñii di Air France am na sax ci xibaaru Abdourahmane Diallo ñu àndoon ci ak moom réunion de crise démb foofu ci AIBD Fatick moom càccum jur gi moo sonal sàmm si rawat nañu dëkkee ci àll bi moo waral seen ak yëglu donte ñu ne luwaay dis na lool waaye terewul yenn ci sàcc moom dëgër bopp gu mat sëkk lañu ci àndal di sonal huit ñi féetee ci kaw gi ak seen jur googu